na ko sopp sëriñ Babacar moom jur taxaw. ci biir na ko sopp sëriñ Babacar. ci biir na ko tabbi mbokki waa Njaayeen damay laaj ndax tant bi li muy rëy am na ku sopp Sëriñ Babacar mu jóg taxaw waaw waaw ni ma man la ana soppay xalifa bi ana soppay sëñ Babacar ku sopp sëñ Babacar ku sopp sëñ Babacar gàmbi aljana yow tiijaan bi yow yow tiijaan bi yow ana tiijaan yi tiijaan ana Tijaan yi ay Tijaan bi ana Tijaan ko julle suba lallal sambala nga jàng fatiya waaw waaw muy benn yoon astaghfirullah عظيم الذي لا اله الا الله هو الحي القيوم فنوير يوم صلاة الفاتحة فرنا أبو ليلو جورم فكي يوم لا اله الا الله تيمير يوم اللهم صل على خير اللهم ذل على خيره أما الفك النار وأمي جبل أما فوق النار وأمي جرم نار يمنتي بيتي ودملي بوزيكاسيون Hmm, dama leen di posé question dama bëgg ngeen tontu ma. boo amee juróom-ñaar bu yonent bi teew Cheikh Tidiane teew Cheikh Omar teew Maam Maodo teew kan moo ci des kan wala déggoo leen ma. bu yónnent bi teewee Cheikh Tidiane teew Cheikh Omar teew Mame Maodo teew kan moo ci des kan moo ci des kan moo ci des Serigne Babacar Serigne Babacar Serigne Babacar Serigne Babacar ku sopp Serigne Babacar maamu jàlleeru maamu wallu Babakan, Sini Babakan, Wajis Acakan, Mesura di Nuhal, Ken Musumun, Ken Musulem Arkaman, Lirpuni Nusgat, Wai Macibara, Meu Mayo Koya, Meu Dijagan, Tiwawan la Bilai, Tiwawan la, Tiwawan la Bilai, Tiwawan la, Tuba Baki Murid, Tuba Anwuri, Tuba Baki Murid, Tuba Baki Murid, Tiwaawan la Tiwaawan la bilaay Tiwaawan la Tiwaawan la bilaay Tiwaawan la ana murid bilaay Tuuba Mbàkke Tuuba Mbàkke murid Tuuba Mbàkke wala fi amul ay murid murid Tuuba Mbàkke murid Tuuba Mbàkke murid Tuuba Mbàkke murid nee na kii wax ak yow la la wala ma bàyyi ku ko bàyyi joxe ku ko bàyyi ay gamala murid Tuuba Mbàkke gamala Sëñ Muntaxa bilaay yàlla fi yàgg sëñ Muntaxa yàlla fi yàgg sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla fi yàgg sëñ Muntaxa yàlla fi yàgg sëñ Muntaxa waa na murid yàlla fi yàgg sëñ Muntaxa yàlla fi yàgg sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla fi yàgg yàlla fi yàgg yàlla fi yàgg yàlla fi yàgg yàlla fi yàgg sëñ Mbay Mansoor yàlla fi yàgg sëñ Mbay Mansoor yàlla fi yàgg sëñ Mbay Mansoor yàlla fi yàgg Hallelujah. Sing man good, hallelujah. Sing man good, hallelujah. Sing man good, hallelujah. And hallelujah, hallelujah. And hallelujah, hallelujah. And hallelujah, hallelujah. Did I give it and be lying, hallelujah. Sing my satire, hallelujah. Sing my satire. yàlla bi yaa alay bay njaay baay yàlla bi yaa alaaji bay njaay yàlla bi yaa ñu ko tànnal laay def ko si dem yàlla bi yaa masate njaay yàlla bi yaa masate njaay yàlla bi yaa yàlla bi yaa masate njaay yàlla bi yaa ana sommay sëriñ Babacar ku bëgg sëriñ Babacar ay boobu may sa may naar dem ma di sa may naar jiwaaru sa may naar ku bëgg sëriñ Babacar loxo ca kaw daa mel ni yaram yi tàngagul de Serigne Babacar Sy Malick ah yaa waarisal xut bi ak maamam te wuutu sa baari mbay seyxil masaayixi في الإسلام دور Adama mbay yaa nu doy mbay yaa moroom yaa nu doy doo seen morom ay Seydi Jamilo ma waay ay Seydi Jamilo waay ma waay waay ma waay ndax ndax mi daanati nga burgi ndax ndax la ana waa kër sëñ ca kaw ci man loxo ca kaw ñu man xam nga lu tax ma bëgg sëñ Babacar lu ngeen ma ko def bay xam nga lu tax ma bëgg sëñ Babacar mooy su ma ko woowee mu ñëw mooy sama secrétaire may lar lar la waa no waa am na waa kër sëñ Babacar ca kaw ñu mag ku di soppeeku jëflante nag yow ci baatin ku di soppeeku jëflante nag yow ci baatin te yaraw ñaari lamp sax lay nekkee dama lay liggéey dundal nga diine ana waa ngir sëñ Babacar loxo ca kaw ci may loxo ca kaw ci may loxo ca kaw ñu màggal bëri waano waano man kii su ma ko woowee mu ñëw mooy sama sëba kaas may dar mar daana di ko waano waano daana di ko bur gi dar mar daana di ko man jël roxo yaaga waano daana di ko man jël roxo yaaga waano Walo, walo,

doon dundal nga diine gi daanaka ndax dama bëgg kuy taal bi seet nga jug nga wane sa bopp. maanaam lii daal xam nga lu tax. ay jëlee ñu ñaari maas ndax gàncax teer naa. wax naa si gàncax boo di naan wax leen. man tijaan laa man tijaan laa. waa gis nga tijaan yi. man tijaan laa dundal nga diine gi. daanaka Bahkan keterenang Masukkan kamu di lain kecil Bertidaklah Bertidaklah Bertidaklah Dokter bertidaklah Kalau nggak apa-apa, vitamin di amul aja.